turam ak santam ci turu sëñ fallu Mbacké mii di itam rafetlu teewaay bi comme ñi ko jiitu waxee ñii ñëpp ndax itam yéen ñii yéene gor ñi nga xamante ne bi ñëpp wootee yéen a bàyyi woon ñëpp àndoon ak sëñ Fallou waaye comme ñu ñëpp àndoon jóge woon ci am ndaje moo xamante ne mu jëmoon ci élection yi fenn fu ne mu demoon fa dagaan baatu askan wi ñu baree bari wuy si woon ko ñoo xamante ne xamuñu sax ki doon wuy si comme doon ndax néew na ñoo xamante ne xamuñu kan mooy Ousmane Sonko waaye xam ne sëñ Fallou Mbakke kon nag ñoom seen yonti Ousmane Sonko li leen amaloon solo mooy sëñ Fallou Mbakke woot na ci kaddu si Ousmane Sonko woot wuy si nañ sëñ Fallou Mbakke te kenn ku ne xam ne ne euh, candidat yi bari nañ kenn ku ne mi ngi doon wut mbooloo waaye mbooloo mépp nag yéen da ngeen bàyyi ñëpp ñu ànd ak sëñ Fallou Mbakke ci lu mu doon wut kon nag mu dellusiwaat ci bis bii di leen jaajëfal di leen delloo njukkal di xam ne wax dëgg yàlla ay gor ngeen ndax nag bala ngaa xam si nit rek mooy ñëpp woote mu bàyyi fi ñëpp wuy si la. Touba moom li fi nekk xam ngeen ko jot amul ñu ngi ci xew-xew yi bànneex yi ak naqar yi kon nag bi leen wooyee ngeen ñëw ci naaj bi tàng bi ñëw kon nag amuñu seen fay ñu ngi leen di jaajëf ci ñëw bi bu baax a baax di leen sant di leen gërëm. di leen sant nag bu baax a baax. ñaari kàddu rek pour jaajafal leen ndax woote bi metti na wax dëgg yàlla waaye wuy see gën a metti foofu ndax ci bëccëg ba li naaj wi tàng tàng am na ñoo xam te ne 16 heures lañ ma woone ma agsi nañ kon nag dañ leen di jéggulu bu baax a baax ci tàngoor wi ak toogaay bu yàgg bi te xam ne njëriñ rek lañ fi jëlee ñi ngi leen di sant bu baax a baax nag leen remercier jërë ngeen jëf. ñu ngi am nag mbégte bu baax ak kontaante di wax ne sëriñ Fallou nag am na euh, liggéey bu mu ñu santoon ma àndoon ci ak xale yi toog ñu wër leen. loolee ñu leen waxoon nag ngeen wax nu ne ñu wax ko Serigne Fallou nañ ko ko muy formation ak financement. financement boobu nag noo ngi ci sëñ bi joxoon na nañu ci ay ndigal ba ñoo ngi ci koo xam ne sa dossier pare na nang ma ko indil mbaa nga indil ko ndey lay wala faati yi bu soobee yàlla dinañ ko financé te dinañ leen fekkit fa ngeen dëkk formé leen yéen ñëpp na nu ko waxee nu ñoo wax leen ko loolu fas nañ ci yéenee dox te duñ ci dellu ginnaaw ñi amagul formation dinañ ko am ñi amagul financement itam man ubbi naa samay yéen ñëpp na ngeen ñëw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam di jéglu nag ci naaj bu tàng bi da ku ne xam ne ni Touba bu ker gi seddee dafa guddi te terewul bi leen woowee da ngeen dagg seen yitte yëpp ñëw wiisuñu ci digg naaj bu tàng jër kon ñu ngi leen koy jéglu bu baax baax di rafetlu seen teewaay wax dëgg yàlla bin ñu àndee ba léegi ànd gor lan àndee fu leen woo ngeen wiisuñu ngir jëmm sëñ Fallou Mbacke mii toog ndax xam ngeen rek sëñ bi fu nu woo dañ koy wuyu da ngeen a engagé wu ànd ak moom ci gëm ak bëgg sëñ bi ñun nag ci loolu lan jàppateeg yéen ba lépp lu ñu defar bu paree sëñ bi woo leen toog a yéen waxtaane yéen xool lu ñuy yeesalaatee liggéey bi ak nu ñuy def ba mu jëm ci kanam